xam nga ñaare dañu jàpp ñoom murit day bokkaale loolu ñuy wax. waaw waaw maanaam bayit bi. Mhm. Euh, léegi lañ koy firi. Mhm. xam nga sëñ bi rek a xam yàlla. Mhm. waaw dani ko. yow yàlla mi nga xam ni ëppante gaag di am soxna. ëppante gaag di am doom yow. yow moom laa jàkkaarloo ji la ñaam. xam nga alxuraan dafa wax ni wa taxaza rahmaanu walada. nee na dañuy euh, waxaalu taxasa rahmaan wala daal dañoo wax ni yàlla am na doom mu ni laqat jitum say an iddaa andi ngeen ci pénc mi wax ju ñaaw wax ju bon joo xam ni takkaadu samaawaatu yatafattar na minhu wa tansuqul ard wa taqrul jibaal an daaw li rahmaani wala daa wax jooju ngeen waxal yàlla asamaan yi ak suuf yi ak montagne yi tuuti te ñu rës ba màbb ngir mer ci ñoom kon nga xam ne yàlla ku bañ bokkaale la Mm-hmm. waaye sëñ Tuubaa ku njëkk a dindi ci dëkkam mm-hmm. dindi ko ci njabootam dindi ko ci ay bindam mm-hmm. dañu ko yow yàlla mi nga xam ëppante ngaak di am soxna ëppante ngaak di am njaboot waaw yow yàlla moomu laay wax waaw nga xam ko kaccete da ko waaw mu ngoog kaccete mu xam dafa dàq lépp fii mu ni ko yaa man ala anil makkaani wal arab yow mi nga xam ne kenn mën laa exposé fi ne yàlla kenn mën ta wax ni fii la nekk Cheikh Fall dam na ko wax mhm. nee na bàyyi leen a ah, fépp a nekk ci yàlla waaye yàlla xajul fenn mhm. waaw loolay wax ji mhm. dégg ngeen ni ko sëñ Tuubaa waxee yaa man ala yow mi nga xam ni ëppante ngaak anil kaw ni anil makkaan ni wëlif ngay am makkaan ñu naan fii la nekk wala arat wala ngay am lu la man a gaar di am benn problème wala lu lay exposé man moomu maa wax ak yow kon fii mu ni ko yaa ala an zawjatin wa an walad xut nii waxut jami a ahli dal maa ngi lay ñaan nag yow yàlla mooma nga xam ni doo am doom doo am soxna kenn mën laa natt ci dara maa ngi lay ñaan nga aar ma man sëñ Tuubaa te aar képp ku ma bokkal dëkk xam nga balat dafa yaatu lool balat mm-hmm. <laughs> balat dafa yaatu waaw te ne ni Sénégal bu ne war ngaa fier ci sëñ Touba te bëgg ko mhm. ndax balat gi mu ko waxee rek dugg nga ci kaaraange sëñ Touba mhm. dëgg la am na mbokk mu may laaj sax naan ma eh, Fawzeni bi ngay wax fan la ko Touba TV teg ci YouTube bi waaw eh, waaye sëñ daam mi eh, dana koy teg lu baree bare bari rawatina guddi gi bu seddee xam naa mbokk mi boo boo xoolee Touba TV rek incha allah guddi gi yaakaar naa damaa xamul waxtu yi waaye damay jékki-jékki rek yam ci sëñ Ablaye damay bàyyi si Moustapha mu yeggale ndax bokk yi seetaan gis naa léegi ku may wax ne ma réew ma ñekk guddi na waaye mënuñu tëdd te émission bi jeexul ndax émission bi dafay émission murit yi dangay ñëw ci njabootu sëñ tubaa gi da ngay rus dangay gis sax ku tug ku yéeg ci otom wàccaat du ma bëgg a dugg tur tur tur ñëw ne la kenn du sëñ bi daal lay jox loxo wax la baat yoo xam ne nii eh, ci sëñ Ablaay da ngay xam ne maanaam lu baax rek a baax eh, kon sëñ Moussa dama lay bàyyi nga yeggale xasida gi xam naa ne tey moom li ma wax léegi soxna maam Mbeelu bi ma ñëw maa ngi moom xam naa ne émission dinaa ci jooy moo tax ma ne ko ba ma yeewoo ba léegi damaa yëg sëñ Tuubaa waaw man daf may dikkal damay damay dollu meret boo xam day mel ni maam su ma gestoo sax ci wetam laay dal wóor na Cheikhul Khadim maanaam ñun ñun ñun buñ bëggul sëñ Tuubaa lu ñuy bëgg mais Sénégal sëñ Tuubaa rek la boo koy exporté moo tax li may wax keroog rek nee naa leen sëñ Tuubaa du local sëñ tubaa international la universel sëñ tubaa pays bu nekk ak nañ koy tuddee ah. kooku lijjantiwul fii sax xoolul sax fii waaye juróom-ñaari nga def ko ci àll ñëw sëñ bi taas sax defoo ko kon xam nga ña am na ñeneen ñu la doon topp toppatoo toppatoo psychologiquement xel nanguwul loolu ko la doon andil añ ak reer kan moo la doon wéttali loo doon def lan nga doon jëfandikoo kooku doon na jëfandikoo ak leneen bi yata'allaqa alladina aslamu min jinni asri duuna man lam yuslim ko atte fii taxu koo jóg lam wax ne wa wahabtali fil ardi turran wa sama hubban wa ta'minan ma'an nama Ah, gis nga kaw gi ni niñ koy béggee sax fii sax béggewuñ ko noonu ah yuhibbuni malaikul baaxil karim li wajhihi maa falahin la yërim nga xam ne boo yéegee ca kaw da ngay xam ne sarifun sahirun fi samawati vikruhu wa fii mala illah laa waxat kaana ahmada sëñ tubaa rek sañ sañ teg loxoom di wax loolu kon ma bàyyi si Moussa mu yeggale fi mu toll ci faw zeyni wa kullu man xaddamani aw saara mu ni yàlla maa ngi lay ñaan képp koo xam ni léggéeyal na ma wala mu ziyaara ma fa najii waxfir loo aw saara na nga ko musal tabul yem ci musal ko képp na nga ko jéggal tam ay bàkkaaram wa kullu man abani aw maala yow yàlla maa ngi ñaan képp ko jeng jëm ci man wala mu soppal ma boppam illaya farsu xoodan aw maala mu jeng jëm ci man na nga ko wërsëgal njub taga boole waale ca alal wa kullu man satamani awlaama wa kullu man képp koo xam satamani mu ngi may xas awlaama wala mu may yedd Pablo tawbata wastislaama bu ko toroxal bu ko dóor bu ko yàq fa ëpp la hoo na nga ko may a tawbata tuub gu nu nangu wastislaama ak jébbalu ci lislaam fa kullu man asasan ubbiya képp koo xam ni dafa ñaawal njortam ci sama jëm man sëñ Tuubaa fal yaa xaalib xalbo yaa rabbiya yàlla bu ko toroxal na nga ma wëlbatil xolam ba mu nangul ma wal takfini asa jamiil alamin ma fegal lor boo xam day jóge ci mboolem sa jaam ñi nga sàkk wal takfihim asa ya rabbi amin bu dee am naa lor man sëñ Tuubaa tam yow yàlla nanga fegal jaam ñépp mboolem sama lor wajal bina ya bina afiya maa ngi lay ñaan nang ma defal sama tabax bii may tabax moo xam tabaxu yoonu murit la moo xam tabaxu jumaay Tuubaa na nekk tabaxu jàmm ya jurni ila xuyurin safiya ci ay xéewal yoo xam ne yu lew ta sell lay doon wajal bina iya bina ilmi tabax bii may tabax yow yàlla na nga ma ko defal muy tabaxu xam-xam wa amalin bi sunnatin wa ilmi bu mu yem ci xam-xam képp na niy jëfe teg ko ci sunna si yanantu bi te àndaaleeg sago wajal bina iya bina litina ay yow yàlla na nga ma ko defal muy tabax boo xam tabaxuk njub lay doon di jubal wante am kay da fegal ma pexe képp ku noonu lislaam tey yàq wal tawfini darasa seytaane yàlla nang ma fegal giirug dund pexem seytaane ak ay loram waasbil baaxina fil awtaani ak ña farak seytaane di liggéey ci entreprise am te ñu ni ñu beew ci réew yi wal takfiali kulla saxsin lam yurid yàlla nang ma fegal gépp jëmm joo xam ni bëggul lii ma bëgg waj hëkka fasimo sarian isyari te li ma bëgg mooy jàkkaarloog sa jëmm ci di la jaamu rek ku bëggul sa jaamu la ak topp topp la na nga ma ko wiññil mu dem feneen ci lu gaaw yow yàlla waltasiban jumlatama yufsiduan yow yàlla nag ma wiññil mboolem loo xam ne lu war a yàq la yadi waan daari sarian aysu an bu mu tàbbi sama loxo bu mu tàbbi sama kër ci lu gaaw bu mu fi mën a feeñe bu ma yàqal wal tudxilil musliha fi yadi wa fi yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga tàbbal lépp lu yéwénal ci sama loxo daari wa sabitanu bilhaadi wa fi da nga tàbbal ko ci sama kër te nga saxal fi ak njub te nga saxal fi ak matal kóllëre wa alili wa aliman yuhinnuni yow yàlla maa ngi lay ñaan nga yëkkati ma te yëkkatil ma képp ku may dimbali wa takfini jumlata ma yuhinnuni yow yàlla maa ngi lay ñaan nag ma fegal mboolem ku may jéema a doyo dal wa maskani salim min alfujaari sama dëkk bii di Touba na nekk dëkk bu mucc boo xam yaa koy musal ci ay kàccoor wamnun ala ahli bima in jaari na nekk dëkk boo xam ni bisa ngi ñëw na ndox mi di di di wal ci dëkk bi ñëpp di ci naan eau potable bu neex di daw ci dëkk ay yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma xéewal goo xam ni xéewal goo gaawe lay doon jaalibatan li minanil muajjala gaawal gi nga ko gaawal mu far di ñoot diwaale xéewal goo xam ne long terme ca kanam lay fee yaayu yaa xayumu yow yàlla mi aji dund te doo dee yow yàlla mi aji taxawal ku la neex di ko dëgëral maa ngi lay ñaan nga wuyu yow rek yaa mën a ab jaam yow rek yaay ku rek yaa jege sab jaam bu faratu min siwa man Cheikhul Khadim daal nee naa fëx daw naa jëm si ci yow ci yow dong diw ma dem ci keneen ku dul yow yàlla wagun bi saxayidi ilaahu dak kon nanga ma nekkal ci di ma wommat jëme ma ci li nga xam ne mooy sa yoon wi gën a jub wali yàlla maa ngi lay ñaan nga nekk di sama borom nekk di taxaw samay mbir samay dimbali wali jamil muslimina ya basi maa ngi lay ñaan nga dimbali mboolem ñi gëm l'islam yow mi yàlla mi aji gis wa وسعة هذا البلد أي yow yàlla na nga baril xéewal yi nga xam day wàcc sama dëkk bi ورزقه والتكفي عن نكدي nga xam dina wàcc sama dëkk bii di Touba nga fegal ñu lépp luy njàqare وتبتل في جماعة تغي maa ngi lay ñaan yow sama boroom na nga fi saxal mbooloo moo xam dañuy taxawal dañuy taxawal julli yu juróom giirug dund yow yàlla mi aji xarañe ci lépp walaajina min sariyaasa samani yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal nu ci loru bii jamono wasari xari wa kulli fitani nga musal nu ci loru beneen jamono bu dul bii ak bépp fitna wasaqina sara nasara wal yahud ay yow yàlla nag nu musal ci pexem nasaraan ak seeni lor ak juif yi nga xam ne ñooy yahood yi wasara iblisa wa kulli si joor na nga nu fegal lépp luy loru iblis ak képp ko bañ dëkk waljini wa dajaali wa suudaani yow yàlla na ñu musal ci ayu jinne ak ayu masiix dajaal miy feeñ mujj jamono antikrist ak ayu nit ñu ñuul ñëpp fii sarxi wal maxribi wal bidaani nanga nu fegal bépp ay boo xam day juddoo ci penku ak ci soow ak ci ñu weex ñi wa sarama fil ardi turran wa sama maa ngi lay ñaan nga musal nu ci ay boo xam day bàyyikoo ci suuf ak ci asamaan yëpp min zaahirin wa baatinin xatama moo xam ay wu feeñ la wala ay wu nëbb wala ay wu ñu dëxëñ yaa latifu yaa karimu yaa ajali yow yàlla mi aji ñeewantel yow yàlla mi aji tedd yow yàlla mi aji mag amil jamiana bi lutfikal ngi lay ñaan nga jëflanteek ñun ñëpp ci sa yërmande ak ci sa ñeewantal wa kullana qul najatin wa fala yow yàlla ñun ñëpp na nga ñun ci ak mucc te defal nu ak nopp wa bi ganal wa sawabin wa salaam yàlla na nga nu fegal ñun ñëpp lu warul te nga dëppale noog ak njub ak yéwénu mbir way tuxrina bi filima ababta ay yow yàlla na nga nu xiir ci ñuy jëf la nga xam ni moom nga sopp way te yow yàlla na nga nu fegal ñuy jëf loo xam ni dalay merloo wala takun mubtaliyan ay yow yàlla xajoo ci jaam ñi bul ñu teg sa nattu sa nattu xajul ci kenn ci nun bu nu teg sa nattu ngir ñàkk gu ñu ñàkk matal sunu àq sunu digganteek yow mi nga xam yow la ñépp jublu tey fi falaaxa wahëb la naa nanga nu may atay siira ak jàppandalu mbir ak yéwénal wal falaaxa da nga defal nu tam ak nooflaay ak texe nga defal nu ko ci ñaari kër yëpp àdduna ak àllaaxira defal nu mucc yow yàlla bi jaayi sa yow wa jaayi man wuli maa ngi la koy ñaan ci bis bii ma toog di bind bisu altine la nag moo tax mu ni bis bii ma toog di bind laa la koy ñaan ak daraje gi ci gane woon àdduna di Moustapha fiihi farum na mislahu walam najid gi nga xam ni moom Moustapha mi ci feeñ jéem nañoo sàkku ba tàyyi ku mel ni moom waaye mësuñu koo gis muhammadin afdali xalxilaayi kuy kooku mu ni mooy Muhammad mi nga xam ni mooy gën gi ko yàlla mës sàkk taraadudin wala stibaaxi gën gi mu gën mbindee fi nag man sëñ Bamba moo ni amul déng dengal amul werante amul lu ci lënt alayhi sali abadan xayra salaam yow yàlla sunu borom maa ngi lay ñaan xéewal gu mat sëkk yàlla na nga ko wàcce ci Moustapha bi nu rafiqul xiyaara wa sixaar xéewal goo xam dañ ciy tàbbi ba àndaaleeg ñu baax ña ñëpp ak ñu doon dëgëral diine waab lana asalazi atana yow yàlla nag nu may nu jàpp ca la nga xam ni moom nga jox yenant muy islam mu andil nu ko wa tarka ma an fi ni te yow yàlla na nga nu dimbali ba nu bàyyi la nga xam ne yanant bi danoo wax nan ko bàyyi hatta yakuna kullana fil araka ba ñun ñëpp dañuy mujj kum ci doon nekk ci ak yëngu koo xam ne yàlla da koy gërëm muxtadiyan bi sunnatin wa sakana te yëngu ya muy yëngu day àndaaleeg di roy sunna si yanant bi ak dal ga muy dal wa najina bi jaayi min daawa yow yàlla yàlla na nga nu musal ci daraje yanant bi ci woote koo xam ne woote ga lislaam taxu koo jóg waltafiana kasiban walawa ñu ngi lay ñaan yàlla nag nu fegal lépp lu di kàcc di wax yu dul dëgg ak ay jëfi neen wal takfina hawa wa ma la yaani yow yàlla nanga nu fegal lépp loo xam ne bànneex la ak loo xam du jariñ jàmm wa bika daban aghnina ya mughni nu ngi lay ñaan yow yàlla yàlla na nga nu wërsëgal giirug dund yow mi nga xam ne ko jox mu fàtte keneen yàlla wa maghfiratukal mu'ammala ay yow yàlla xam nga ni sa njéggal la ñëpp di mébét sa njéggal moo gën a mat lépp mu ngi la koy ñaan aw bët moo gën a yaatu fuuf sunuy bàkkaar mi nga xam ne dañuy alag rek yaa baru rahmatuka arjaay ndana yaa baru yow yàlla rahmatuka sa yërmande arja moom la ñu gën a yaakaar indana fi nun min amalin nasibu faxfir lana min amalin ci jëf boo xam ne nasibuhu ñu ngi ko doon fàggu faxfir lana na nga nu jéggal yow wali jamiil muslimina ajmain nu ngi lay ñaanit nga jéggal mboolem julit yu góor yëpp yi ci lislaam wal muslimaati kulli ayn kulli ayn nga jéggal digalaale mboolem julit yu jigéen yépp ci biir lislaam ci giirug dundu wala tuwaaxina bi suuil adabi yow yàlla nu ngi lay ñaan bul nu jàppe sunu ñaawuk teggin sunu diggante ak yow wa bi wa kusri jàppe sunu dëgër le mooy sunu dëgër bopp ak sunu bari caaxaanaki ak i fo wa ndax nun jaam ñi bu fekkee sax dañoo dëgër bopp tamit di tooñit xamal ni yow yàlla narju siwaaka kun lana tafaddula lu nu dëgër dëgër bopp yaakaaruñu ku la mooy yaakaaruñu kenn ku dul yow te yow rek ngëneel nga am wala tuwaaxisna bi kasratil fudu ay yàlla bul nu jàppe sunu caaxaan yu bari yii nu nekke fi saayirin wa baatini wa bil xuful ci lu nëbb ak ci lu feeñ ak sunu càggante gi nu nekk wakkun mooy salaaminal wabaayi yow yàlla nu ngi lay ñaan nga musal nu ci lépp loo xam ne ay épidémie la ay mbas yu dal jàpp wa kulli naasilin min asamaai ak lépp looy wàccee ci asamaan itam mu nekk ab nattu di dal jàpp ñu nag ñu ci musal wa kulli ngi lay ñaan nga musal nu ci lépp luy wëndeelu moo xam ci asamaan lay bàyyi ko baynahuma yakunu yaa rabba sama te bu wàccee di mën a lor rek na nga ñu ko musal moo xam ci asamaan moo xam ci suuf yi. yow wajub xulubana yow yàlla nanga ñu ñoddil sunuy xol àndaale sunuy cër. lii bëri wa taxwa bi jaay naasi nga saxalal ñu ko ci njekk ak ci ragal yàlla ci daraje ki nga xam ne moo laabiree islam. wasalliyan aska salaatin daafia. yàlla na nga def ngeen ngaa teddi xéewal goo xam ni daf ñuy défendre yow yàlla. ana wa baan min jaradin maania. walif ñun sax ab ay dinu dal wala ay njéeréer yoo xam dañuy tere tool yi di naat. yàlla nekk ci yanantu bi ak. waa këram ngën gi xéewal ak ngën gi mucc wasabi wa maskani udya salaam te yow yàlla nu ngi lay ñaan yàlla nu wattul sunu dëkk bii ci darajey saabaam ya yow mi aji jàmmal wasabki nafsi wa sidni maa ngi lay ñaan yàlla nga sellal sama jëmm sama bakkan te nga dolli ma xam-xam yasifu fi daarayni anni hamma xam-xam boo xam boo ma ko dollee daf may fegal àdduna ak lépp lu di njàqare coona wa tahiran xalbi wa sidni yaaya yow yàlla ay maa ngi lay ñaan na ma laa laabalal sama xol te nga dolli ma ak fi taatin ya rabbi ya maa ngi lay ñaan yow yàlla nag ma dundal ci topp yàlla sama borom bañ koo bokkaale. wajal yamini kasaabin fi saxa. maa ngi lay ñaan sama loxo ndijoor na amee barke amee barkeeg sutura ba mel ni taw boo xam day sotteeku ci biiri niir. maymunatin fi siddatin wa fi raxa. yàlla am barke ci jamono boo xam ni dafa nekk jamono bu yëpp yolo yolom dund gi te lépp jafeñ. rafi. yow yàlla. yàlla yow mi aji mayaakoon ji yow mi gën a kawe ñépp ci àndandoo bi lu ko nal yow ma an fa tari maa lay ñaan yàlla nag ma sóob bis ni ki tey ci ngën ji jariñu yoon bi hurmatil musafayil muxarrabi maa ngi la koy ñaan ci darajey sa jaam bi nga xam ne ëllëg moom ngay rammaloo te mu gën laa jege walaali wasabi wasaari rajabi nga def ko ci darajey say waa waa këram ak ay àndandoom ak ci darajey weeru rajab bi may wooye julliya bi taqdimi wa tasdiqi yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma tabel ci ak jiitu ak dëggal bi hurmatil muqaddami sidiqi ci darajey sang ba nga toppoon di abu aboubacar saddiq nga xam moo jiitu woon ci saaba yi gën caa yow yàlla maa ngi lay ñaan nga tabel ma ci ak dëgg ak ci ak matal kóllëre ak ci ak tawféex bi warmatil muwaafaqil faaroxi ci war may ki nga xam ni moo matale woon kóllëre diggam ak yanant bi waaye mooy ka tàqale woon dëgg ak fen di Seydina Omar wali am saadata daarayni ay yow yàlla nag ma may texe àdduna ak texe àllaaxira bi Usmaan axi nuurayni maa ngi la koy ñaan ci dara darajey Seydina boroom borom kersaga borom ñaari leer ya moo denc ñaari doomu rasulullah ma la koy ñaan topp ci war may Seydina Aliyun mi nga xam mooy aji kawe ja hamiya sunu imam boobu nga xam mooy Aliyun nag nu may ci àdduna ak alaaxira baat bu kawe jëm kaw yow yàlla mii boroom jullik suba yow mii boroom jullik tisbaar rabbana yow mi borom jullit tàkkusaan yow laay woo yaa rabbana yaa rabbana aqbal nasmana yow mi moom jullit timis ak gee woo naa la nanga nu nangul sunu woy wiinu nu la woy ci war may nag ñaari sëtam ya nga xam ne mooy Huseynu ak Asan xurmati kulli man ila sabin jamaa ak ci wor may képp ku mas a dajaloo bokk ci saaba yenant bi wa xurmatil banina wal banaati maa ngi la koy ñaan ci wor may doomam yu góor yëpp moom Moustapha ak doom yu jigéen wa xurmatil alima sawjaati di la ko ñaan ci wor may waa këram ak i soxnaam wa hurmati rusul wal anbiyaa di la ko ñaan yi nga yónni ñu nit patt waxunu ak yanantu yi nga yónni ñu solo ko war a wax ak ulamaay la ko ñaan ci darajey borom xam-xam yi ak wàllu yi nga xam say xarit lan wa hurmatil malaa'ikil xuril kiraam di la ko ñaan ci wor may malaayka yi ak sang yi nga xam ñoom nga tànn hurmatil kabati baytikal araam di la ko ñaan ci wor may néegub yàlla bi nga xam ne ko aji màkka moom ngay war tañu wormaal ko hurmatil baytil muqaddasil aziim la ko ñaan ca néegu bi yàlla ba nekk ca Jérusalem muy baytil maqdis ba nga xam ni aji màgg la wa bi madinati rasulikal karim ci la ko ñaan ci dëkk ba nga xam moo dàq ci dëkk yépp gën leen a tedd muy madinatul munawwara wa baytikal mahmur ya rabbi wa ma ci la ko ñaan ca baytil mahmur mi nga xam ne bis bu jot juróom-ñaar fukki junni malaaka yi dugg daal di sàbbaal génnaat ca ëllëg sa yeneen dugg sàbbaalal yàlla seen yasuru min malakin a sama bis bu jot kon juróom-ñaar fukki junni malaaka dinañ ko ko ziyaare ci kaw asamaan maa ngi lay ñaan ci baytil ma wajaay kulli siwdan min saalihin ci darajey képp koo xam ne am na ak njub tamuy yéwénal di rafetal aw mursidin aw abidin aw naasiin di la ko ñaan ci képp koo xam ni jub na wala muy jaamu yàlla wala muy laabire wajaay kulli man ilayka yunsabu di la ko ñaan ci darajey képp koo xam ne askanoo na ci yanant bi wala mu askanoo ci topp la habli ma minka jamian adlubu maa ngi lay ñaan nga may ma mboolem li nga xam ne maa ngi koy sàkku ci yow takfini jumlata ma awso ay yow yàlla maa ngi lay ñaan nga fegal ma mboolem li may sàkk nga musal ma ci minu sarian bi ka moyso nga def ko ci lu gaaw yow yàlla bi mën a musal sab jaam fal tay ma an maa ngi lay ñaan nga boole ma man ak uh, jëmmi yanantu beeg sa jëmm bis ni ki tey yasooxuni ilayka ay suulima mu ngay may wommatal sa bopp may jëm si ci li la neex fu ma fi fu ñu ma fi xame wa kullu ma an kay lay xawadi te lépp loo xamante ni luy gàllankoor la sama diggante yow mi sàkk àdduna fal tawruxan bay ni wa bay noo sari na nga tàqale sama digg ak loolu ci lu gaaw a gaaw bis ni ki tey ana alladi aslamtu wajhiya huna ndax man mi la koy ñaan man xaadim rasul maay ki jël sama jëmm jébbal la ko yow yàlla ilayka siman ala anusina àndaa leeg dogu dogu gu wér ni dinaa topp di rafetal ci li nga bëgg yow yàlla ana alladi lastu aminu abada man maay ki nga xam ne man xaadim rasul du ma jeng mukk jëm ci lu dul yow yàlla ila siwaaka huna summa xada rus naa jeng jëm ci ku dul yow fii ak ëllëg dañu jëm yow yàlla yàlla lim la wa anta rabbiyal wakiilu ah ala la lay bañ a nekkee te sax yow yàlla ku wakkilu ci yow daal di wéeru wa anta hasbiya fala amilu. te wóor ma ne yow doy nga ma sëkk te ku wéeru ci yow du daanu. kon wóor naa ci yow yaa baru anta rabbiyal wahaabu. yow yàlla yow mi aji baax yow sama borom yaay ema yaakoon bi. wa fi futuhaatika la artaabu. te man kat du ma werante mukk mukk ci ubbi may ubbil di ma ko mayal sa bopp. baru anta rabbiyal aziibu. yow yàlla yaay aji baax ji nga xam yaay sama borom yaay aji matal lépp. wa anta hasbiya fala axibu yow yàlla doy nga ma sëkk te duma sooy ku ànd ak yow du sooy yaa dulu yaa anta yàlla mi aji maandu yaay sama borom te yow yaa ma mën a défendre wa anta yàlla doy nga ma sëkk du ma wut beneen défense bu dul yàlla yaa yo anta zul jalalil wasion yow mi tey borom màgg gi tey aji yaatu ji wa anta hasbiya fala unasion yow yàlla moomu doyloo naa la du ma xëccoo ci dara yaa rabbi anta sul waalil waalidoon ay yow yàlla sama borom yaay borom pexe mu màgg mi yaay borom pexe mu sotti mi. yow yàlla doy nga ma sëkk dootuma léwtoo kenn. yaa fardu anta sunata yaa maajidu yow yàlla yaay aji kenn yaay borom may yaay aji màgg ji. wa anta albi fala uaysidu yow yàlla doy nga ma sëkk du ma iñaanante kenn. mawlaaya anta sunada yaa naafiu yow yàlla sama boroom yow yaay boroom njub gi yaay boroom njariñ wa anta albi fala uqatiu yow yàlla doy nga ma sëkk wëlif may dem di xëccoonte kenn di dogante kenn anta lasi tuuli muhibbu kawdak yow yàlla yaay ki nga xam ni yaa may jël di ma may di ma jaarale ci nga xam mooy sa soppe bi di ma may am njub yàlla doy nga ma sëkk sàkkuuma keneen ku dul yàlla fa mi ma li nan azim maa sama taata sama kaaraange nanga ma ko téel muy kaaraange gu matati sëkk an kulli zinaabin wa subri kulai maa ngi lay musal ma ci an kulli zinaabin ci képp kuy boroom sell di matt wa zufrin ak boroom wewuy dagg kulla xiin ci bépp jamono wal takfini yaasal baxaai te nanga ma fegal yow yàlla mi nga xam ne yaa fi des bu fi lépp jógee te jiitu fi bi dara amagul asal la si maara illa loo may fegal loru képp koo xam ni dafay dox ak ndëggu tànkam nag ma fegal wa wasarra man yarkabu saa silaahi maa ngi lay ñaan nga musal ma ci loru képp koo xam ni dafay war ci kaw fas wala mbaam wala gëléem te yor ngànnaay wasarra ma yatiru saa janaayi maa ngi lay ñaan nga musal ma ci loru lépp luy naaw yatiru àndaaleeg sa janaa yor ay laaf wasarra man yajlisu bil kalaami maa ngi lay ñaan nga musal ma ci loru képp ko toog te yor ay kàddu di ko wax maa ngi musal ma ci loru képp ku toog mënta dem sax moo xam handicapé la te àndaaleeg di ami pexe nag ma musal ci ay pexe wasarra man yalbisu fil uqudi nag ma musal ci loru képp kuy tifli di di wal ànd ak di fas dara wasarra sairin wasi joodi nag ma musal ci loru képp kuy njabar àndaaleeg di bañ dëgg bi kaa xattu yaa ilahi al asada yow yàlla maa ngi fase ci yow di yaakaare ci yow yow yàlla lu may fase ci yow nga musal ma ci gaynde wa hayatan wa wan wa aswad ah. musal ma ci jaan musal ma ci jiit ak ci lépp lu lëndëm te ñuul wa aqidan wa naafisan wa saarixa wa aqidan ak koo xam day fas lu bon wa naafisan ak kuy tifli lu bon wa saarixan ak kuy sàcc alalu jàmm wa ainan wa saairan wa taarixa wa ainan ak ku bët bi aay wa saairan ak kuy njabar wa taarixa ak kuy jug guddi wal insa wal jinna maanaa ni waan wal insa ak nit wal jinna ak jinna ju aay maan mboole seen an nii walif man wa an ak mëlif ñan jami man xasa aslama fi ma ala maa ngi ñaan nga musal ji tam mboolem ñi jébbalu ci lislaam ci lu feeñ bi alfi alfi lafsi laa hawla wala ma koy ñaan nag ci daraje ay junni junni laa hawla wala quwwata illa bil ilahi silula de ko ñaan ci daraje ñaan jooju ma wax laa hawla wala quwwata illa billahi al-azim bi alfi alfi lafsi laa hawla wala nag wa najjini min sharri sakinil balad wa sharri kulli walidin wa ma wala musal ma tam ci ayu képp ku dëkke dëkk bi wastagfiri sarrafa min waayini ak ayu képp ku fi jur ak kuñ fi jur ak ayu bépp làmmeñ wu aay ak bët buy xool lu bon wa kulli man xasadani bil ayni ak képp koo xam ni mu ma jublu te bi may jublu pexe bu bon la indaale wa najini min suli kulli zalimi yow yàlla na ma musal ci ayub tooñu katu ak tooñ nga mu àndaalil wa sarri kulli jaahilin waalimi ci ayu képp koo xam ni daa réer ak ko xam sax tey tooñ wa kulli saamitin wa kulli naatixin ak ayu saamit mooy koo xam ne daa noppi tey jëf wa kulli naati ak kuy waxit wa kulli maarixin wa kulli taarixin maa ngi lay ñaan ci ayu képp koo xam ni moo xam dafay nëbbati guddi di jug ak koo xam ne dafa giim toog sax jugul wa kulli arsalin wa kulli faadini ak ayu ku yées ak ayu am ngëneel wa kulli xaayirin wa kulli saayilin ak ayu koo xam ne dafay noot ak ayu koo xam day songe wa kulli taayirin wa kulli maasi ak ayu xam ne dafay naaw ak ayu xam day dox kulli xaamilin wa kulli faasi koo xam ni daa giim siiwul wa kulli faasi ak ku siiw wa kulli aasidin wa koo xam ni pexe baaxul ak koo xam ni dafay saboote wanaa ji ni amantaala yaa maji maa ngi lay ñaan nag ma musal yow mi kawe lépp te màgg ci lépp yow yàlla nga musal ma ci ayu jinne ak ayu seytaane mi nga xam daa féttéerlu nga musal ma ci ayu koo xam ne daa jege di yàq ak ku sori yàq wal barri wa saari tàngoor su ëppee day du baax seddaay su ëppee du baax musal ma ci ayu tàngoor wu ëpp ak seddaay ak ayu ndox wa wasawi dani wa ay ni abad te yow yàlla na ma ma dëgëral woo dëgëral mu dëgër ba ma dëgër këng wa tahiril xalba wa sahihil jasad maa ngi lay ñaan nga laabalal ma sama xol te war da fegal ma da nga wéralal ma sama yàpp yaram wa abliyal xiyaama fil layaali yow yàlla nag ma may ma nekk ku jàmbaare man di taxaw guddi yi wa sawma fi nahaari guddi ba suba nang ma dimbali defal ma tawfiix ma yendoo di woor bëccëg bi te matal ko sëkk waxaliyani min arrasaili maa ngi lay ñaan yow yàlla nag ma summi ci lépp loo xam mooy jikko yi warul wa kun mu jamilia bil fadaili soo ma ci summee nag maa ngi lay ñaan nag ma taarale ci mboolem jikko yi ngëneel yi nga xam moom nga tagg wasakillu bi wabtaan rabbil maa ngi lay ñaan na nga ñawal samam xel mu ñaw lool te sa bopp yow yàlla farhan mubinan la yura li misliya ubbil ni day bir ñépp xam nañ ma ubbil koo xam kenn du gis lu ni mel waliyam asaqatan wa nuura yow yàlla nag ma may ma neex ma neex la lool samay mbir dafay neex làmmeñ wi neex sama ñaw neex sama ma ànd ak leer ak xel mu ñaw wa fi sirati yasiril murura xam nga nag wa in minkumu ila waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiyan su munu najjina lazina taxaw wa nazaru zalimina fi a jusiya ci suutu Maryama yàlla lii na ñépp dinañu jéggi siraat sëñ Bàmba ne yàlla nag ma yombalal sama jéggi siraat ma fay romb